Seydina Mouhamed ba pare ne bàyyiwul samay rakk ba léegi nag mu ngay ànd ak Macky am jom seen dëkk ba billaay yaay ko kenn agareeteetul ngeen am jom di liggéey bëgg lu baax Thank you. alors Maodo waaw taawul Sito Sito Sito. taawul yi ñu tamit am jom te bëgg lu baax. mais tey jii xale yi jàpp. nee naa ko jàpp xale yi jàpp kenn taxawaatootu ndax Sito. kii jabaru fereera la kii sëram la sa maama ngi noonu sa séeréer noonu sa séeréer ngi noonu macha allah sa séeréer ngi noonu waaye toogal ngoone na toog ngoone may ko mu toog na toog nee na moom toogul Zarko la bëgg a dem ma ne. nii moo jur yaayu Zarko xool damaa bëgg nga toog dama ni. ankay woo nañ ko woo nañ ko. Mhm. moom mii moo ko yàq. wallaay. turkinda wala turkinda. turkinda. ma toog ba man kiiwul de leerul de. amiin amiin. lii daal mooy jom lii laa bëgg yow ñàkkoo jom néewuloo yu sa yaay dafa baax démb tey doog a ñëw diggante jàmm gën a jag saa wat lam saa macha allah laf cat ñaaw sa ndey mosu ko faa wax sa baay mosu ko faa jëf bëgg sa yaay ca ba muy gune takk ko fa mu war a takke keroog ba mu waree am fii laa taxaw ne leen sama doom la démb ku nekk sa mbër nga yor ragal peete day xañi wërsëg sama rakk ji la am. waa jon waar la waa jon a la. kay moom maam jaara ñoo dëkk. ma toog <laughs> ak fa nga ko demee dina wax

bañ lay tudd neexoon nan lool te saf lool ñuy laaj suñu waang waang sa baay jox ñu xaalis bu bari nga bëgg saar ko nag mm-hmm. bëgg saar ko weesu wut tey mu xew la nga ñëw fii. waaw dara. ku nekk da ngay may sa morom dërëm. ku nekk da ngay may sa morom xaalis. macha allah nga bëgg a saar ko lii nga def tey sasati nga Grand Yoff. barki yonent fooy bëreeti Grand Yoff dañuy fàq fekk si. si ta gara mu dëkkee. Grand Yoff ee eh, saar ko fu mu dëkkee. Grand Yoff dëkkee. maa ni Grand Yoff la dëkkee. Grand Yoff la dëkkee. yéen Zarko fu mu dëkkee. Grand Yoff la dëkkee. Zarko Diamaguène la dëkkee. Diamaguène la dëkkee. Siteu fu mu dëkkee. Grand Yoff la dëkkee. Zarko fu mu dëkkee. Diamaguène la dëkkee. Siteu fu mu dëkkee. Grand Yoff la dëkkee. Zarko fu mu dëkkee. Diamaguène la dëkkee. macha allah laf cat sama cat ak sama catu morom. lafal cat yal nañu yàlla lafal cat jaam ñi ñoo ñi moo leen moom jaam ñi xeet ñi yaa leen moom mooy samaam ay lebu ndakaaru baa ngi góor a waay kontaan naa ay waay fukki teg ñaari samaam daal moo ko moom waaw góor a waay kontaan naa ay jaam ñu ñuul ñi yàlla moom jaam ñu xees ñi yàlla moom waaw góora yee kontaan naa macha allah laf ni nga moomee jaam yi ñuul yeeg jaam yi xees ñi képp ku dëkk jon waar wala nga jëkk baasul yaayama leen moom macha allah laf jat dama ni la maak yaayama jànkandoo ñu mayee ndooñu ma taawloo njarka macha allah laf jat keroog ngénteem dañoo laaj suñu waang waang diggante jàmm gën ak jagsaaw doo fa sama yaay gaañoo baaba sama rakk mooy xaritam bëgg fàllu sama rakk mooy xaritam xam nga lu tax foo ngi ngeen di foo kenn du may sa morom dara lu dul dërëm xeex amul njariñ xuloo amul njariñ histoire amul njariñ tey ku leen gis ni ci réseaux sociaux yi xolam dina dàng yàlla na yàlla cat yàlla may leen ay junni junni junni sama xol sedd na tey jii na guddi noon du nelaw bu nelawee sax bu nelawee sax daa ñuusa yee ah. bu nelawee tey damay dem ñuus leen a yee barki yonent bi yal na yàlla fet yal na ngeen toog ba ngeen di tuddantey doom bu may ñëw maa ngi moomay ànd même kër Mame Diarra ñëw si kër. parce que li ma la des naa ko def. mais nañ leen dem. boo paree ngeen dem fële ca mag mais moom ñëwagul. Mati non ñun mais dinañ dem de léegi mu ñëw. waaw waaw ma ne nii nii daal. yàqu baax nga yow. yàlla na yàlla fay. ba nga baax. kontaan nañ ci yow. kontaan nañ trop. lii neex na ba dee lii mbokk la gis nga bëri bi bu paree rek jeex na mbokk gi dugg kontaan nañ ci yow am na koo xam ne fii lay liggéeyee ci sama doom atelier bi sa mbokk la séeréer mooy kii yuusu sama doom la ne waaw sa doomu nijaay mu ngoog fii ne si sama atelier doom mu ne ma gis nga Zarko ak Siteu bëri nañu tey ji maa ngi fii ci ci yéen kon ay mbokk la wax dëgg yàlla kontaan nañu jërëjëf jërëjëf jërëjëf Fadi mer na leen xëyoon foofu. mer na leen xëyoon foofu. Ah, waaw mais garaaw si àddina la parce que lii farata la quoi lii farata la. ñoom taxaw yooyu ñaan rek bu fekk ñun ñaan